Bonjour très chers internautes de Guédouan Info TV. Aujourd'hui, nous sommes ici à la salle de, musculation, Golden Fitness de Guédiawaï euh, pour euh, rendre visite à un jeune champion de l'école de lutte Balagay Youssou et par ailleurs fils de Père Bala. Voir ce garçon en train de connaître une ascension fulgurante dans le l'arène ne doit pas nous surprendre parce que sous la houlette de son père, Balagay numéro 2 a connu des moments de gloire, mais aussi a réalisé d'énormes exploits couronnés par un titre de roi des arènes. Mesdames et messieurs, ce jeune homme qu'aujourd'hui nous allons entretenir avec lui il est le récent tombeau de Boissé numéro 2. Il est le protégé de Balagay numéro 2. Il est le poulain de Lamine Golo. Mais également, il est aussi le poulain de Moss. Bref, c'est un pire produit de son papa. Très est comme à l'accoutumée permettez-moi de faire une langue de Kocc Barma mbokk internet yi tey ñi ngi fi nga xamante mooy salle de musculation euh, mu nekk Géejawaay ñu daal seet si jeune champion de l'école lutte muy Youssou Ndour nekk ndaanaan nekk itam doomu mbër doomu père Balla ñu daal koy seet comme ni ma ko waxee sànq ci nasaraan rek buñ gisee xale bi muy teg ay jéego yu am solo ci làmb ji war ñoo bett parce tamit ci keppaaru baayam ci la Balla amee façon takkusaan bu ne ba nekk roi des arènes gone gi nga xamante ne tey moom la ñu seet si moom moo mujjee daan Boy Seye numéro mooy xale bi nga xamante ne moo nekk ci keppaaru Balla Gaye numéro 2 nekk ci keppaaru les 2 nekk itam plein Lamine Golo nekk plein mbës ci gàttal mu doon xale boo xamante ne bàyyam moo ko tàggat formé ko ba mu toll fi mu toll ngeen topp ñu rek ñu daal dugg daal xool mbër mën a tàbbi ci waxtaan wi yi comme ni leen ko waxee woon sànq rek champion bi ñu seet si mi ngi nii mooy le jeune champion de l' école de lutte Balla Gaye Youssou Ndour ñu bàyyi ko rek mu nuyoo ñu doog a tàbbi ci waxtaan bi. waaw ginnaaw ma sant yàlla jul sant bi sant sama ñaar waajur di sant géejawaay bu baax di sant sama koñ mi nga xam ne fa laa leen sant bu baax baax baax ak suñu waa école booy faam combat maa leen ñaanal yàlla may leen ndam yu sedd guy waaw gërëm ñëpp di sant ñëpp tamit. champion kan mooy Youssou Ndour bu ecole de lutte Balla waaw Youssou Ndour benn xale la rek dugg si làmb 2012 waaw am naa 15 combats 13 victoires 3 défaites waaw. Ah, mais avant ngay ñëw ci yoolu yow comme ça sa jaar-jaar ak fi nga xamante ni moom nga fa nga foowee comme xale sa enfance nan la demee quoi. waaw sama xale maa ngi ko defee Gunaas Ascension Touré ma juddoo Guy ga Baxdaat xam nga màggee tamit si la baraak defee fa lu bari làmb nak dama ko bëggoon gis sama ay mag bu ci béré ki si mel ni Mafal sey ko ñaanal yalla xare ko àjjana te ko kooku tax na ma gëna bëgg dugg làmb parce que sama ñam papa dañ dan def ay mbab tur foo nonu duñ dan liggéey buñ liggéey wacc ñu boole ñu foofu ñuy bërënd ñu tek ay juroom ñaar juroom ñi fond di bëre maa ñu ay gàqu ki si ni Samba Lawe ñoom sama samay morom daal ñu ma juddandoo koñ bi ñëpp waaw loolu moom dugg si làmb. tur Youssou fan la jógee. waaw ah, tur Youssou Ndour moom nekk leen loo xam ne dama xaat piraat lu doon lu nekk la ndax man Youssou Ndour laa tudd tuddewuñu ma kenn Youssou Ndour laa tudd te moom laa indi sama tur si tur boo xam te ne dañ la ko tudd dañ la ko jox par hasard mais tur boo ne tey euh, mun nañ daal yàgg na ci yow te moom lañ la tuddee direct. waaw yàgg na ci man kay ndax loo judduwaale kay xam ne loolu yàgg na si yow moom laa judduwaale tamit moom lañ ma tudde moom lañ tifli sama nopp Youssou Ndour. amu ma beneen tur bu dul Youssou Ndour waaw moo tax moom laa wéyoo si làmb ji. moom sa turandoo mu ne kilifa ñëpp ràññee ko ba relation ngeen am. waaw maa ngi koy nuyu lu bare bari bari maa ngi koy nuyu ndax boobu ba tey maa ngi ñaan pour ama moom kii toog pour waxtaan moom tamit ba tey maa ngi si jógaguma si ndax dafa neex nga gis sa turandoo wala nga kii nga dem sa kër turandoo déggante ñoom say doomu turandoo xam nga loolu dafa neex. maa ngi lancé waan appel di ko wax maa ngi fëgg buntam mu tijjul moo ko ma gis ko waxtaan ak moom ndax soxla naa ko trop waaw. su ma leen déggee daal fi mu toll nii amagu amoo leen yenn relation yu jege yi trop. non non amaguñ ko amaguñ ko mais teewul tamit chaque tëbëg si dinaa am lu ma déggante moom am fu ñu jaar moom lu ma def xam nga tamit mais loolu neex na trop mais ma toog gis ko waxtaan ak moom man moo ma gënal waaw loolu laa am loo xam ne. moom laa laaj sama turandoo muy Youssou Ndour di ñaanal jàmm ak salaam waaw. su ma la déggee daal li nga bëgg mooy nga gën a am ak moom benn relation bu approfondie ngeen di debalante di dikkalante mais bu loolu weesoo say combat est-ce que mës na jàpp ci sa combat. non benn bis amoon naa combat ma dem fa benn bis amoon naa combat ma dem fa mu war ma jàppale tu set at xaalis at bee mais damaa dem ba si biir ma ñëw fa moom ku ma boole kooku gisantu maam moom moo tax. mais da ci bëgg japp ne xawma bon buntu la wara jaar bu mu gën see jàpp suma la déggee daal fi mu toll nii yàgg nga def ay démarche pour mun ko gis waxtaan ak moom mais ba léegi nii daal yoon bi nga yoon yi ngay jaar ba léegi daal mën ko egg ci moom. waaw yoon bi laay jaar ba tey mënu ma egg ci moom te bëgg naa àgg ci moom ndax muy jàpp sama combat ndax gis nga làmb léegi da ngay bëre nit ñi boo yàlla jox super jox leen oto jox leen ay bee jox leen añ loolu faaw comme moyen dëgg moo ko mën. damay lance appel rek am naa ñu may jàppale ku mel ni àndaw Keeba xam nga kii Pape Mama Fall sama papa sama xarit ku mel ni sama grand Balla Gaye de l'Est de Elton ak ñeneen ñoo xam ne ñoo may jàppale ay Pape Talla Pape Talla pièce de sage daf may jàppale Ndongo Lo daf may jàppale Assane Fall daf may ñi may jàppale ñi bari na waaw ak grand Moussa maa ngi koy sant bu baax a baax a baax waaw ah, ñun ñëpp dañuy jàpp sa affaire ah. yi waaw. bu loolu weesoo sa jaar jaar ci mbapat umpul kenn au oh, niveau de géejawaay waaw ah. ñëpp xam ne yow jaar nga ci mbapat daal ci bay sa waar tey sa jaar jaar mbapat nan la demee. waaw sama jaar jaar mbapat mooy comme lu ma la wax rek dëkkaloon ay mbër dañuy toore suñu xel nekk si mbapat ñu dem bëre ji def tournoi bu ñu demee man dama xëy jël wala ma ñàkk final wala ma dem quart final wala sama keneen ki ma àndal loo xam ne moo koy jël ñu mayante suñu biir noonu lañ doon Ah. mbapat waaw. yan wow, nga jot a jaar. waaw beneen mbapat bi bëri dem naa Jolof man ñoom Père Mango ñoo àndoon ak sama ñoom papa Ali dem nañ ba Jolof mbapat dem naa tamit ay fatik fu nekk dama fay dem di mbapat yi dëkk bi yëpp damay mbapat man daal avant ma nekk dugg ci laam dama doon mbapat maa ngi mbapat ba tey ba instant yi ni maa ngi waajal pour dem mbapat incha allahu rabbi waaw. mbapat yi nga champion nga ci dajal daal am dam seen kaw. waaw mbapat yi ma bëreel ay champion bari na mais comme lu ma lay wax rek am ñoo xam ne instant ay mbër lañ doo tur seen tur xam nga am ñoo xam ne ñoo dëkkoon géejawaay doon bëre nga leen daan tamit loolu tamit da siy gée loolu tamit da siy gée moo tax am na yoo xam ne du ma ko mën a wax mais ñu ma daan si mbapat si ay champion bari na te ñoo ngi si làmb ji di bëre waaw waaw loolu am na mais tamit day baax nga leeral rek li mën ñu ñaar wala ñett rek pour ñi seetaan bokk internet yi mën a xam quoi mu leer ci seen bët xam kan mooy Youssou Ndour réellement. waaw ah, ku su mel ni Tigo xaritu yaayam bëri nañ ba pat amul frein ba lu lamsaar bari nañ bëri na xam nga comme lu ma la wax rek am yoo xam ne boo koy tuddaat nii day leneen waaw comme moom mbapat la woon dañ doon foo pour bëri si mbapat daan leen doo mën doo ko mën a tudd pour wax waaw moo tax. waaw ah, mais ci kaw mbappat yooyu ban ban mbappat nga xam te ne bëree nga ko mu marqué la trop ban moo la ci gën a marqué. waaw bu mu si gën a metti trop boo gën a marqué mooy ba amoon fii bayal maa ndax boobu si waa kër ñëpp a toog ci mburu moom daan am final loolu daf ma marqué marqué na ma trop. su ma la déggee boo père mi ngi fa woon. boobu sama papa mu ngi fa woon sama ñoom yaay. boobu laay soog a door si mbapat bobu ki momu jitu bay beur aran bobu def na fu lu bay beur aran mo tax loolu marqué na ma trop trop trop sama carrière waaw mo tax loolu moom met na trop mom nga am solo mais boo mosoon beuré comme ni nga waxé waxee père daal di toog mu leen père tay mi ngi ni tok di la seetaan lan nga yëg sa yaram. waaw damay kontaan damay bég ndax suma xé lan demé ba suma né pak ba fi muy liggéeyee damay ñëw mënu ma dembu du ma ko dégg nag mu koy wax ndax du ma du ma taxaw muy wax wax yooyu mais ñu muy toogal di laay dégg mu ni non démb ñuus bëri na moom ak kontaan xam nga Lamine loolu maa ngi koy sant yàlla di di ko ñaanal moom tamit waaw di ko ñaanal moom tamit gudd fan fekke at man comme fekke sama am-am si làmb ji incha allah maa ngi ñaan bu baax a baax te bu yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def waaw. loolu am solo mais champion nga daldi jaar ci bopat bay sawar ba ñu bari ràññee la nga joggé fa daldi bëgg dugg ci nga xamante ne mooy arène lit avec frappe ban année nga dugg ci lit avec frappe waaw lutte avec frappe ma ci dugg 2012 le 31 le 31 la dugg 2012 waaw bon mois la ki kii décembre décembre la waaw nga dugg ci sa palmarès nan la tédé sama palmarès mom mooy li la wax rek commencement bëri naa 15 combat amna ci si treize victoire trois défaites waaw. treize victoire trois défaites. mooy sama parcours si làmb yàlla mu gën ko yokk moom mu dubleel ma ko dubleel ma ko dubleel ma ko waaw loolu mu doon lu am solo mais champion bu ñu xoolee tamit père xam nga ñu bëri dañ naan dafa exigeant cest à diir moom doon na ko xam te ne tey ci entraînement dalay teg yenn yi di la exiger nii yu bëri du la ko tolérer tey ni mu mel noonu nan ngay dundee moom. waaw sama papa dem na ba si biir léegi moom entraîné tuma ku si mel ni ñoom lam foor ñoom sagar at Lamine Faye at mbës at buuba mu fi jóge sànq ñoo ñoomay at Aline Seye 2 combat bi moom maan ñoom jaas ñoo pare sama papa dem na ba léegi dafa jëm mag tamit te mag boo si xasee dugg rek da ngay commencé jëm mag feebar affaire yooyu moo tax léegi su ma ñëwee saal bi ku si mel ni ñoom lom laa fi fekk ñoo ma defal li defal li bu fu lom nekkul buubaa ngi fi su ma amee combat Lamine mooy gérer lépp Lamine Faye kooku moom sama mag la sama xarit la sama lépp la waaw Lamine Lamine Faye waaw maa koy sant bu baax a baax a baax baax moom waaw. loolu am na sax mais xam nga père moom dafa doon ko am te li ma wax dafa exigeant quoi boo ba lu ñëwee entraînement yenn yenn équipement yi sax du ko toléré soit des nga tax yenn accessoire lu ci mel ay seen ak yenn yenn la koy tere quoi ni lii da koy dindi sinon doo fi entraîné dal sa boo taqee seen day wax ma affaire jaay taaramu si làmb yii yëpp doo ko gis si làmb ji loolu la lay wax daan la tekki lii yenn saa yi mu wax koo xam ne xolam tamit daxa jege dina mer mais dina xa gérer ndax day xam ne papa moo ko def tamit moom moo ko sañ a def ndax kursu nañu entraîneur sa entraîneur lu mu la wax moom ngay def waaw école moom boo fa duggee amatul leen loo xam ne yaa dogal loo nekk nekk sampion champion champion boo ñëwee lu mu wax moom ngay def ndax tamit dafa rafetul ngay bëre di tak ay jaaro ak ay seen ndax mën nga bo gañu sa bopp mën nga gañ ki ngay bëreel ndax contact lañ wax bo ñoo yoy yëpp da nga war tek tek teg bo contacté paré nga taqaas ay minute yagul non la fa démé nak ah loolu amna solo mais bu ñu revenir ëmb tamit ci sa carrière arène ñu gis ni benn moment amon nga benn départ bu am téni waaw départ bu am solo la waaw di daan di tegale ay victoire mais à un moment donné jafé jafé yi bëri trop donc mën nañ ni carrière bi daal di xaw yéex am benn ralentissement lan war waraloon loolu waaw loolu tamit xëy na ndogalu suñu boroom la ndax ku nekk soroon may sa bopp doo sonn waaw xëy na yàlla moo ko nammee woon noonu te ba mu ko neexee dañ na waaw ndax bëre at daanu moo ànd waaw yaay nee ma buñ la daanee rek bul nekk ci géew di tëdd di bañantu jugal nga def xam ni da nga daan daan dama daan daan samay morom suñ ma daanee kon damay sant yàlla xam nga du ma ci mer du ma def dara mais daanu metti na trop. mett na trop mais dama koy gérer waaw at fulla at fayda waaw mais comme noonu ma jugee woon ñëwaat tamit loolu lu ma la wax rek suñu borom la mais maa ngi ñaan yàlla fu mu toll mu teggil ma ko ba samay morom fu ñu àgg ma romb leen wala ma dépassé leen waaw. Ah, ba tax am na sax ñu bëri ñoo xam te dañ doon faral di wax naan noo Youssou c'est que ndaanaanu bëreekat la mais du ko teg ci yoon euh, lamb lamba du faral di ko teg ci yoon te ni nga xamante ne noonu lee bari aussi waa du ko teg ci yoon. waaw sama grand ñëw na Moussa. Moussa Moussa Kees ko wax tamit lu la wax rek moom tamit day jàpp si combat bi da si jàpp bu baax a baax a baax musaa waaw ñoom amuñu seen fay ñoom amuñu seen fay te ñoom tamit géej waay lañ fi nekk nekkalaat ñëpp mbër yëpp ma tax heure bu ñu amee combat ñoom tamit dañ siy jàpp jàpp si togg yi jàpp si oto yi waaw comme sama carrière na fi ñu tolloon ma revenir tuur ci question parce que ñu bëri dañ ne Youssou li ko doon ñàkkloo combat yu bëri da doon ñëw bëree maa mën bëree bëree xale du ko teg ci yoon. waaw mooy li ma la wax rek ngay ànd ay xale ànd ay xale yoo dooleem fu mu toll nii dafa naw fu mu wax dana la dóoral xeexal yooyu boo koy def sa maay nag yooyu après dafa dafa mën a sonal moo su musaanam combat damay ñëw rek ne caméra la te laa mujj nekkul ay rayante. indi fougue de jeunesse. waaw léegi nag loolu yëpp laa jël teg ko nële léegi damay ñëw def lu wóor ndax damaa yor ay nit xam nga ñu samay ginnaaw tamit maa ngi jëm si làmb beneen maa ngi jëm si mag si làmb ji waaw moom léegi damay jël sama temps lu ma bi dara su laajee xeex ma xeex su laajee bëri ma bëri mais dellu ginnaaw moom du ma mu mos a def sama àdduna waaw mais naa dox sa kaw xool lu ma yàlla may ma jël dem ñibbi waaw. waaw mbër ñu gis ne aussi nga naan mbër moo xamante ne da ngaa dégg mën a fecc gis nañ sa dernier combat donc ba nga tuusee rek di nga yëngalee mën a fecc foo ko jëlee. waaw man ay géwël laa sunu koñ ñu may àndal ñëpp ay fecckat lañ ku si mel ni gàqu xam ne gàqu géwal la te dafa mën a fecc Samba loobe loobe la Demba Joor géwal la moo tax ay te su ma jugee fii saal nii kër géwal laay dem toog ñuy tëgg yooyu may tëdd seen néeg di nelaw waaw moo tax nag damay mën a fecc waaw Ah, mu ne xeex bi aussi parce que gis nañ nga nekk benn bagarreur waaw ñu bëri sax gis nañu école ba moom xeex du seen fort mais sax combat dañuy gis ni da ngay ñëw indi benn attitude penseur dox sa kaw adversaire daal di xeex ak moom di indi giita ngaas mu ne xeex bi tamit fan nga ko da nga ko dond wala da loo jàng la waaw mu ne xeex bi dama ko dond ndax sama papa mag yi ku ko xam-xam nañ moom ndaanaan la ndax ku nekk champion Espagne xam nga loolu yombul sama papa champion la Espagne am fa ay trophée am fa ay lu nekk lu ma wax rek nee naa ko yow yow yaa ñu yàqal mais tey yi heure yi Espagne ñoo doon toog ñu nekk ay boxeurs yu mag mais tamit xëy na ma dafa bëggoon làmb ñëw fii kon na laay fam si làmb ji waa mais tamit champion la si boxe moo tax su ma amee combat mooy war a ma taxaw wane bagaar wane gu ma sax xeex bàyyi ma am combat yoo xam ne yu mag yi la ba nga xam ne leer na ma kii mbëri borom tur la ñu xam ne dama mën a xeex waaw. mën nañ jàmm ci côté xeex bi li nekk ci yow dëgg génne googu. génne gu ma ko ndax dañuy ceeñc booy xeex xeex ni duñ la jël te damaa bëgg di bëre moo tax fan yi léegi ki doon ku wax daa jox ma Youssou Ndour jox ma Youssou Ndour ma ma arrêté xeex bi bu nekkoon jamono ñu may jàpp gars yi di sifaay xam nga loolu loolu day metti moo tax waaw ah, mais bu buñ ñëw aussi ci sa dernière sortie sa dernier combat contre ki nga xamante ne mooy Boy Sey numéro 2 eh, coow li bëri woon ci torop rawatina ci sa wàllu préparation donc coow li bëri ci rumeur yi ñu naan Youssou dafa blessé eh, Youssou préparé lu ni ci waree mais aussi yooyu yëpp coow li bëri woon ci quoi blessure bi ak coow loolu yow noo ko doon dundee waaw blessure bi moom métti woon na trop ndax xamee ni bëy amee loxo dafa métti da ngay doon ndax doo nelaw ba guddi doo nelaw ba guddi nga dem fajar Aline Seye yee la Angers 2 yee la nga juk lol metti won na ma mais lu ma bëggaloon mooy lii mooy ma dan at per la déggee ci kaw blessure bi nga doon entraîner ci kaw blessure billahi wallahi wa taala la sagar mi chaque jour dama ci doon dem entraînement chaque jour dama doon dem entraînement tax dama yew fayat su ma demul école suma ko mënu maa contact nak ndax loxo moy japp mais dina and boy physique suma ma sama loxo di fayu mo muñ xam daal mu ma bëgg lamin mu ma bëgg loolu at gars yi lépp ndam li waaw bu weesoo loxo bi aussi ñu déggoon ni amoon nga blessure tam ci côté ndigg waaw ndigg moom amewoon naa ko ndax si saal dama ñëw ñu doon aras benn weñ fekk suroo étiré wu ma ma ñëw rek aras affaire bi jàpp ma problème ndigg mais loolu lépp alhamdulilahi rabbil alamin sant naa si yàlla bu baax na am na ñoo xam ne gënoon na leen metti xam nga yàlla teggil ma ko man maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax mais nga blessé war ko war war ko traité war a préparer sa combat donc côté financement côté xaalis tamit dina diis trop ci yow côté boobu tamit ba ndax ba est-ce que amoo ci woon ay ah, na na trop ndax tamit ngay pare combat war a dem si sëriñ yi war a reer war a lekk xam nga nga amee si loxo am si ndigg di fajuwaale dem hôpital di jënd say kii loolu tamit dafa metti mais dama am ñu ma doon jàppale moo tax mettiwul bu baax a baax baax waaw. waaw euh, bu loolu weesoo ñu ñëw ci li nga xamante ni mooy euh, sa combat euh, contre Boy mooy combat mujj bi jour boobu ni nga ñëwee tamit daal jaaxal ñu bëri parce ñu bëri dañu doon faral di wax ne Youssou ñoom pour ñoom bagarreur la mais keroog dañoo gis une autre facette de Youssou Ndour nga daal ñëw daal di wane bëree imposer ko bëree ba am li nga bëgg ci moom lan moo waral nga bëree anam boobu. waaw maa ngi jégalu sax sama supporter ak sama ñoo xam ne ñoom laa àndoon noonu lu tax ma bëre noonu dama ko xam ndax booy sëy mbër muy bëre ay loxo la tamit ak tànk moo tax ma njéem a ñëw jaxase ko bëgg nuyu plaqué bot yooyu moo tax moo dama doon def noonu mais moom tamit ma loolu jeexee ba loolu jeexee damaa jàpp bëre fu wóor bëre daal waaw. waaw mais jour boobu wax nga leen moo ñu jeexal mooy dañu gis adversaire bi ni mu toll gabari bi macha allah mun nañ moo la ëpp maas sax mais nga ñëw imposer ko li dox ci kam wan ka daal tey tey tey tey tey amul dara looy lijjanti ci moom. combat bi tax awa mas moy blessure yi ma daloon moo tax awa mas ndax metti mu wax am di di am mas mo tax awa mas mais liggéey nas doole bu woor bo xam suma jappé lamb di làmb boy sey ñep mom sax dañ nañ dën yëpp combat ak sama grand Balla de sama papa Balla de 2 xam nga daje nañ fofu mu ñew saaga ma nday ma saaga ma bëgg alu mais tamit comme que Balla Gaye sama kilifa la sama mag la sama xarit la mun ma yuusu man xam mënoo bu fi wax jubalal tegaat ma si baat damaa jubal dem xam nga gars yi ñoom tafaa ñoom tafaa Tafa Buuju ñooy mujj doon waxanta waxam moom di saaga di ko loolu tamit naay sul man booy sëy sama nawle la man moom nekkul ay côté ay àll lañuy dajee may saaga may xataraayu non si géew ba la géew baay lu la waay neex def nañ rayante. loolu bi muy am def ngeen signature bu pare wala. boobu defaguñ dara boobu commencé boobu maa ngi am maa ngi amee sama blessure boobu maa ngi amee ndigg boobu maa ngi amee ndigg mu ñëw gis ma dama pare woo xam moom yaa ma gën a xam dàq na ragal dama pare woo tàppeen nga su ma la jàppee naa nangam taay yow ma bëgg dem Omar na bul dem bàyyi ko mu wax maa xool ni nga mel. kii ànd Balla Gaye 2 di pare combat tamit loolu tamit combat bi loolu moom gën a may sens dama waroon a ànd ak Omar dem entraînement guddee bëccëg dem nekk dëkk fee mu nekk fa lañ nekkoon man moom. su ma la déggee daal sa préparation Balla Gaye 2 joué na ci lu bari. waaw joué na su bari bari bari waaw joué lépp moom la waaw ak tamit sama grand les Elton ñooñu moom ñooñu mënu leen fay dama leen di yàlla mu yàlla bi suñu buur mu fayal ma leen. ñu juboo mànkoo doon benn ñun ñëpp waaw ndax ñoom ñooy suñuy grand su ñoom la ñuy roy ñu ngi leen ñaanal jàmm salaam bu baax baax baax gis nga bu Omar ñëwul les dina ñëw yaa may dégg Elton moom tamit yenn saa mu toog xelam ne wala mu ñëw jàppal ay raqam gars yi daal ñoom noonu la ñuy def suñuy grand ñun tamit noonu la ñu bëgg defal suñuy raq waaw ndax tey ji école bi boo tuddee ñoom Balla Gaye 2 tudd les tudd Elton yàlla def nañ di tudd boo mu tudd di nga tudd di nga ah ñun ñoo ñoo nek nekk ndax gaay gaay yëpp gaay mbeuri at fils de bala sama xarit ñun ñoo ñoo fi nekk gum waaw am na solo mo la lay dañuy jàppale suñu rak waaw amna solo wax nga sank ci côté xex bi même côté bëree bi amna ñu bëri dañ naan yusu euh, même côté bëree bi amna ñu bëri dañ naan yusu li nga xamanteni mom la bëree mom la bëree ci mbapat bëree gu ko tamit ci arène waaw waaw man sama mbapat lima lima bëri mbapat bëri mo sax arène lima ma mbapat bëri mo ko arène dina ko beure arène man li ma daan mbapat suñ li ma bëri mbapat bu beure bëri ko kon waxu sun ko kon heure mais sam papa daal mo mbër boy beure da ngay def lu woor ay beure ji yëpp dafa jeex wa mais mën na man beure fam wo mën na ko ndax ma pat ay tëbëg si luma nek sun keur ay tam xarit dama daan dem di wëri di beure ji talum won sax dara wa moo tax yàlla suñu borom di ma dimbali walé Mm-hmm. bu loolu weesoo nga am ndam lu am solo loolu ci kaw Boy Seye numéro de comme ni ma ko waxee rek keroog da nga ñëw daal koy dicté sa loi am ndam ci kawam euh, coow li bëri dégg nañ bërki Demba Ndiaye ku ci mel ni Pape Ndoye mu daal lay dëkk ni dañ ma jox Youssou Ndour ak keneen ak keneen euh, boobu léegi yaa ngi toog ab diir lan moo waral toogaay bi ak ñan nga jàpp ne war nga mën a laale ak ñoom. non su ma bëggoon bëree amaan naa combat mais Pape Ndoye du ma bëree moom ndax fi nekkee nekk suñ combat moom dañ ko dox magam bañ loo ko combat bi ragloge perte vague bañ loo ko combat bi xam nga mu dem def ñaari ñetti at année blanche bu bëree moom ndax moom booba tey bëriwul man maa ngi prouvé mais bien sûr maa ko raw xam ne maa ko ëpp combat maa ko ëpp victoire tamit su ma ko gën a seet kese gënu ma seet kese moo du ma bëree moom waaw bañu ko nag nañu wax mais bëri woon yeneen ñaari combat man damaa bëgg bëre moom. dal fi tolni toll bolé lamb boolewu non non lamb bolé fi mu toll nii fu mu ñi ci kaw nañ xaar lamb ju tijéxu ndax gaay yi bëri seen biir mu tijéxu ndax amna ay boy yoo xam nañ combat ku ci melni kewal at Modja ñooñu buñ daane buñ bëree rek ci daan lamb jooy gëna tijéxu tijjeeku armée caat ku ci daan lamb jooy gëna tijéxu waaw ñooñu laay xaar nak su ma la déggee daal diggante ñooñu mom war nga ci mëna a ak kenn. waaw bu weesoo noonu ñan lañ la proposé ba nga bëreeg léegi. ki nga wax léegi wax nañ ma ko. wax nañ ma jara. ñi ñu may wax bari na. sa digganteeg mbay guy gi. mbay guy gi sama diggante moom tam gaa yi ñoo ngi koy wax mais mbay guy gi sax su ma nee mbay bëreem moom daa lu tax ndax daa lu daam daam lu mu def. daa dugg sa kër. dafa dugg sama kër jooy sama grand xam sama Alioune Seye de bëgguma muy jooy. non junior même bu nekk junior Alioune Seye bu mag bi làmb jooy ku fa demoon gis nga nu mu doon xasaraayoo di jooy man bëgguma bëgguma jaas di jooy fenn bëgg naa ko ko ku ne ma fajal ko naqara man waaw moo tax nag buñ ma ko joxoon naa bëre moom. maanaam daal ci gàttal mbay guy gi boo demee ba koy jël daa am lanc loo ko lancal moo tax nga bëgg koo jël. kese mais mbay guy gi du ma du ma ko laaj sax du ma taxaw naa ko jox ma ñu bëre wala lii lii doomu daango bëgg na bëre man. dom dang kor dañ lamb jox mënu wutal promoteur ñu bëre mo la wax lool yu li ngay wax ni graw na dé barki sayyidina wax lool wax né ma wut promoteur mu teug suñ combat man mom man ñoñu la solo nak dom dangu disul dom dang mo lom ni neexon mo lom bi ki ki xol ah mais yu ah, sa ay lourdeur gone griffis gi lebu gis nga ko ñabula def yow suñu ko lamul pour xol e. ki xol lom xol lom for xol mbeus Ah, xool ñoom Balla Gaye ñoom les deux ah ñun kooku jaaxaluñu buñ joxoon suñu combat barki alxuraan karim ma bëre moom daan ko bu neexee suñu borom waaw ah, mais mbay guy gi sax baax na du mu tudda daal sax ndax doy na ma bëre moom. daal am na solo fi mu toll nii daal moom ñi nga wax daal ñoom nga gën a visé ku ci mel ni kéwél ak ñoom ja ak euh, diggante Thiat ak ki nga xamante ni mooy euh, mooy mooy armée. ak génn kay rek maa ngi taxaw foofu maa ngi taxaw di xaar waaw. combat boobu maa ngi taxaw di xaar te dinaa dinaa ñëw dinaa samp ndënd combat yi nga fi lim daal yaa ngi taxaw di xaar lu ci lu ci lu ci mënti am rek pare nga pour bëre pare naa pour bëre ñoom ñëpp mais bëri dañ leen laaj yaakaar ñoo da leen a préparé dañ leen di musique musique bu ma kenn damaa gis ni maa di yéen làmb neex la ñu war a mën a bëre moo tax ma laaj leen mais du leneen waaw mbër am na solo mais bu loolu weesoo tudd nga sànq ko am te ni mooy Balla Gaye numéro 2 li muy représenté ci yow bari na euh, mu nekk aussi tey seen mag comme ni nga ko waxee rek ni ci keppaaram tamit nga yàgg nekk yàgg taataan lu bëri ci wetam euh, ngeen séq benn complicité tey ñu gis récemment bi mu bëri ak Modou Lo ba ba pare daal di am ndam ndam ci kawam euh, mu ñëw école ba am beneen nouveau nouveau statut de Balla Gaye 2 tuddee ñëw di assister booy seen entraînement leen taxaw seen combat ba ñu egg seen bis taxawaayam bu yees boobu ci ko jàngatee. ndax Balla Gaye 2 lu tax kenn du ko jëm naane ndax ñun combat am moom taxee dañoo bàyyi lépp dem jàppale ji ko ba combat am jeex moom tamit daf ñu doon fay si man sax gisewu ma ko noonu war moom bu ko neexoon def ko bu ko neex bañ ko ndax heure bu amee combat mu ñëwat ñàkk ñëw ñun ñëpp dañuy dem ndax moom moom mooy borom géejawaay moom moom géejawaay ndax moom mooy suñu mag te moom su moom lañuy ñuy roy moo tax ñu gën a bëgg làmb suñ demee kon bay ñëw defaat nii day yokk suñu ngëm-ngëm si làmb ji ndax école bi am na ñoo xam ne demoon na ba seen xel commencé bàyyi bëre mais bañ gisaatee Omar di ñëw seen xel nekkaat na si bëre moo tax loolu acte rafet a ngi noonu waaw loolu def ñoo ko si sant bu baax baax baax les tamit da def les tamit da def mais ñu ngi leen di sant bu baax baax baax baax ñoom ñooñu ñooñu xam ñooy suñuy VIP ñooy suñuy mbëri mag ñun lu ñu am kenn amu ko de ñun lu rëy la ñu am roi des arènes am les kon ñooñu ñun mënuñu leen fay waaw am nañu ay mbëri mag ñooñu fu ñu duggee si làmb duñ laaj ci ana mbëri dañ leen a tudd ba ko rek làmb ji di jeex kon ñun dañoo war a sant yàlla bu baax baax baax ñun ñun waaye ko li de Balla Gaye ñëpp nag xale ba ci ndaw ba ci mag ki si ñi am combat ñëpp yàlla may leen dam ay ñoom Palaay Ousmane jóob ah Boy Ibou ñoo fa am combat ñoom ñett ñooñu waaw ah, mooy Thiat mooy Ousmane Thiat Daouda Fall ñooñu yàlla na leen yàlla may ndam sedd guy comme ndam bu ñu am yi leen di ko gën a dàq maa ngi leen koy ñaan yàlla mun na ko yàlla ko yàlla def. waaw mu doon taxawaay bu am solo nga xamante ni moom mi ngi koy def ci biir école bi ba Balla Gaye 2 bu ñëwee entraînement di liggéey ak yéen nan lay liggéey yéen day day contact wala physique lan ban façon lay liggéey ak yéen. non xam nga Omar day daf ñuy physique la physique yu métti dañuy contact ba pare daf ñuy contact ñaari 15 ñi pare mu def loo ay saut ay ay masse ay flexion abdominaux non yu metti sax. ci biir contact mu leen di rectifier di yokk seen xam-xam bu baax. waaw soo defee heure day ñëw na nii kooku mooy ndaanaan <laughs> kooku ndaanaan la na nii nii nga ko war a daanee nii nii nga war a def waaw moom noonu lay noonu lay dundee ñun ci école bu ñëwee école ba ñëw jàpp na ne nii nga war a ndaafe nii nga war a def kii moo tax waaw. maanaam daal yéen ngi profité ci xam-xamam te mu ngi leen di yokk bu baax. waaw ñu ngi ciy de te moom ngi ñuy yokk bu baax baax a baax moo ngi ñuy yokk waaw moom ngi ñuy yokk de moom moom kooku mënuñu wax ay waxam ñun waa école bi ndax bu ñu wax suñu suñu xol day tooy te yaa ma gën a xam waaw mën nañ wax bari wax lu ëpp moom nag moo tax nag mënuñu sori ay mbiram waaw kay moo xër si moom waaw.